له ما في السماوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على من أرسله rahmatan lil alamin wa jaala diinahu wa shariatuhu xaalidayni hudan linnaasi ala marril qurun ayuhal mushahiduna alkiram taala wa mbokku téléspectateur TFM fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax jàmm ak xéewal yàlla na ko yàlla sotti fi ngeen nekk ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di balu àq te di leen bal àq di ñaan borom bi subhanahu wa lépp luy jafeñ-jafeñ ci kaw ak ci suuf ak fu mu mën a nekk ci biir réew mi yàlla nañu ko yàlla borom bi subhanahu wa taala teggil di nuyu nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ziyaara di leen balu àq di leen ñaanal ñoom tamit fa nu nekk yàlla may leen fan bu gudd ak wér gi yaram ba bàyyi leen lu yàgg yàgg yàgg yàgg sunu kanam ndax ñoom seen dund am na njëriñ macha allahu taala ñu jël nuyoo boobu rek teg ko ci suñu loxo doom Cheikh Mamour Essa Diop di ko wax ne nañu ko séddaleel xalif généro yëpp papaam yeeg nijaayam yeeg magam yeeg ñëpp rek ñëpp xaj nañ ci te ñu koy ñaanal moom Cheikh Mamour gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal ay waajuram rawatina suñu yaay Adja Sakar Sall nga xam ne moom dafa defe ne man bébé laa bu am 3 mois di ma kamti kamte maa ngi koy ziar bu baax ak yaa Xadi ak mbooleem yaay yëpp mbokki téléspectateurs yi ñu dugg ci hôpitaux yi nuyu leen ziar leen di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa yàlla defal leen chifaan laa yuxaadiru saqaman wala alaman euh, wëradi gi bëri na torop te tasaaroo na te mettina na te tiis na koo gis rekk mu ngi jàmbat rawatina mag ñi waaye nag li kulli daa in wopp goo gis rekk am na lu koy faj ñi ko xam-xam nañ ko ñi ko xamagul xamaguñ ko waaye bu kenn découragé ku feebar rekk yàlla na la yàlla may loo mën a fajoo te yàlla dimbali la itam nga ànd ak ñu lay faj nga wér ak jàmm moo xam ci médecine bi la moo xam médecine traditionnelle la ah, moo xam bu mu mënti doon yàlla na ko yàlla saafara delloo la ci sa sago ndax léegi faju bi tamit yombul di nga gis koo xam ne yaramam sutante na waaye du mën a dem hôpital soo ko waxee mu ne la bu ma demee lu may fajoo awma ko kon ñu ngi ñaan yépp rekk suñu gouvernement yi gën a bàyyiwaat xel suñu plateau médical yi yombal ko wut ay euh, ñi nga xam ne ñoo fa nekk yore sociale bi ñu dooleel leen ba nit ñi bu ñu demee consultation walla war a def ay analyse ah ñu mën leen a jàppale rawatina ñi nekk ci CMN bi nga xam ne ñooy côté euh, euh, nu mu ko tuddee ci IPM yi ñu jàppale nit ñi pour que faj bi nekk na problème si dëkk bi muy mag muy ndaw ba ci xale yu ndaw yi dangay gis ku feebar tëdd këram comme ni ko yaa déggeen simeer doon waxee jàllo yàlla na ko yàlla yërëm dañoo wax ne bari na ku tëdd si néeg yu lëndëm te mënul wax problème am ci biti ñooñu nag war nañ leen a bàyyi xel di leen jàppale te ku mën a jàppale doomu aadama rek nga jàppale ko tey nag thème bi ñu ngi ko jubale incha allahu taala ginnaaw bi ñu nuyoo noonu jaale ñi génnle àdduna yépp ñu ngi ko fas yéene wax lan moo tax aji wuñu ren ndax dinañu aji walla lan moo tax aji wuñu ñaari mun nañu poser ñaari question yooyu yëpp ndax dinañu aji wala lan moo tax aji ren ndax dinañu aji waaw wóoragul tey nag la xurratu zil qaadi mooy weer wi nga xam ne mooy jiitu toujours tabaski ci lañu fas yéenee waxtaan waxoon naa bien na ma ko bindal bis naa mu bind waxtaan rek waxtaan nag c'est defal ma tem bi mooy ndax ren dinañu dem màkk wala duñu dem loolu mooy thème bi ma joxe di nuyu nag euh, fan yi fa ma nekkoon muy waa Ziguinchor di leen ziyaare bu baax rawatina njaatige ba ma nekkaloon muy soxna Aminata Mbay madam Ngom di ko ziyaare bu baax di ziyaare mbokk yu baax yi mu dëkkal yëpp ay rakkam ñoom soxna Faat Bintu Nduur ñoom Adja Faatu Mbay di nuyu ñoom oustaz di nuyu ñoom uh, ay uh, soxna Ndey Xadi Li ndeysaan di nuyu soxna Awa Ndiaye ñoo ñëpp maa ngi leen di ziyaar waaye duma fàtte itam Cheikh Ngom principal waaye di nuyu nag oustaz Ibrahima Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñooy pare seen ziyaar bu mag fële ci Sindière Sindian nag dëkku diine bu mag la yóbbante nañ ma nag ci président directeur généralu tele bi muy Youssou Ndour waa Ziguinchor nee nañu kilifa diine ya fa nekk seeni porte parole nee nañu ci ci télé bi la ñu bokk quartier général kenn du leen ci boole émission yi kenn du leen si boole ma ne leen loolu moom dina dugg si nopp euh, le directeur général euh, sama doom Birane dina ko dégg waaye alaaji buuba dina ko dégg waaye itam Serigne Ndiaga dina ko dégg secretaire général madam Ba wax naa leen yóbbante boobu la ma waa Casamance Ziguinchor rawatina ñoom oustaz Ibrahima Ndiaye ñoom Serigne Babacar Sy Ndiaye nga xam ne waa Sandiara ñooñu nga xam ne ay nitu yàlla yu mag ñoo fa nekk xam naa tourisme religieux bi bu commencé euh, dina bëri site yoo xam ne Cheikh Omar yu taal jaar na fa dina bëri loo xam ne dinañu fa jël war nañu jëlee ay touristes au niveau international di leen indi ndax foofu la fa nekk ci ay nitu diine buñ ko doon lim tey émission bi du jeex waaye incha allahu taala balaa yàgg bu programme yi nga xam ne moo ñu tënk ba tax ñu wàcce émission bi jeexee muy affaire football bi dinañu delluwaat ci suñu heure normale bu boobaa dinañu invité ku mel ni oustaz Ndiaye Ibrahim Khalil mu ñëw fii toog gën leen a leeralal waa Ziguinchor seen inquiétude ak li nga xam ne euh, naqarlu nañ ko ci ne ñàkk guñ leen ñàkk booleel xam naa loolu moom télé bii moom c'est le miroir du Sénégal ñëpp a ko bokk képp rek am nga fii cër te xam naa ne bu duggee ci nopp PCA ak alaaji Birane ak buuba mi nga xam ne moo yore programme ak njaga dinañ ci taxaw nu mu gën a gaawee loolu yóbbante la boo xam ne waa Casamance yëpp ñoo ma ko yóbbante woon ñu wax ko ci waxtaan wa nga xam ne def nañ ko fa ñoom alaaji Cheikh Ngom ñooñu ñëpp principalu euh, CS la foofu ci Ziguinchor ñoom ñëpp ñoom Papis Diallo macha allah taala ak seeni rakk ak famille bi yëpp aja Aminta nuyoo baa ngi noonu ak suñu tonton Cheikh Ngom su ko defee ñu wax ne euh, ñu ngi leen di jëfal di jëfal mbooleem rek koo xam ne teewoon nga ci waxtaan bi di wax leen ne leen tey la première Zulqaada tey la première tey normalement fii ci Sénégal tey da doon nekk ñu naan première avion tey lay dem ci privé bi privé bi nga xam ne nag mooy Renofis nga xam ne moo ëpp ñu ëpp ci ñuy organiser pèlerinage ci la ñu nekk ndax lu toll ci deux cent et quelque trois cent yi li ko manqué bariwul foofu la ñu bokk ñooñu nag am na itam beneen groupement bu tudd ko COSAPO boobu itam am na ñu ci nekk waaye bi gën a ëpp doole tey fii ci réew mi gën a bëri ay nit mooy Renofis le président Moustapha jongu nekk fa ak suñu njaboot goog nga xam ne ñoo fa nekk man fa laa nekk maa yore commission bi yore ŋànk mbirum diine bi waaj nañu nag ñun suñu bopp ñuy nuyu délégué général dégg nañu waxam macha allahu taala démb itam dégg ngeen chargé de communication madame Pereira Adja Ouray li mu tontu Alaaji Assane ci question yi mu ko posé muy ne ñun euh, suñu état gouvernement bi ba léegi waxuñu ñu dara pèlerin yi nag ñu ngi toog xam ngeen ne Sénégal doon na yóbbu ba fukki junni ak juróom benn ren fukki junni ak juróom benn doomu aadama waroon nañoo dem ren Euh, normalement daaw organiser wuñu ren itam ah ba léegi li muy xeeñ moom fi mu nekk neexatul ndax bu ñu demee ba ne tey la première fan ci weeru wi nga xam ne mooy jiitu aj bi nga xam ne aj gi presque un mois rek a ci des heure bi doon fekk ñii ñakku-ñakku ñii jot seen passeport ñi ku nekk xam ban bés ngay dem tàggatoo bi commencé te li si doy waar mooy état bi ñi nekk ministre yi ak euh, homme de politique yi xaw ma dañoo dégg ñun lu ñu déggul ñoom ci organisation yëpp ñu ngi maye billet ki démb rek lañu jóge fii parcelle ci conférence su Adja Khadijatou saw maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar suñu euh, ministre bu baax boobu Amadou Ba maye na fa billet màkk Mbaye Ndiaye nga fa toogoon euh, ministre d'État Euh, kilifa yooyu macha allahu taala Adja Khady ñu koy ndokkeel bu baax ci bësëm bu rëy boobu ak mbooleem ña mu ko bokkal ci waa réseau boobu waa parcelle ñu ngi leen di nuyu di nuy Adja Dabu Seck ak Adja Khady Samb ñi nga xam ne ak ay Aïda Mbaye ak Fat Kayre nga xam ne ñoo ma accompagné woon di leen ziyaare bu baax ñooñu maye nañ fa billet màkk léegi nag su fekkee ne ministre yi ñu ngi mayee billet màkk kilifa yi di mayee billet màkk ñëpp di wàcc ñun privé bi délégué am na lu mu wax ne bu kenn jël xaalisu kenn ndax contentieux bu amee defe naa wax ji noonu la demee ñun nag jëluñu xaalisu kenn ñun privé yi wala boog li ma xam ñun ku ñu laaj ma ci télé laa toog di wax liñ lay wax mooy ne la ren màkk gi xamaguñ ci dara yow xamagu amagoo kota xamagoo lu billet di jar nooy jële xaalis mais dafa am ñoo xam ne say mbokk la ñuy doon wala say am di jàmm ñëw na la sama xaalis sama yaay su ma ko joxee xaalis bi wala sama pàpp wala sama kii attan na koo dugal si leneen kon jëla xaalis bi nga dencal ma loolu denc la boo xam ne kooku sa digganteeg moom la parce que yëfi nag yëfu privé la kooku day jël xaalis bi dencal la ko sa compte soo ko nee kar sama xaalis mu defal la chèque defe naa ci tele laay waxee bari na ñoo xam ne jël nañu seen xaalis ginnaaw bi ñu déggee ne aj bi wóoragul ñu ne dañuy bàyyi ba déwén mais am na koo xam ne nee na la man fii ba 10 ans li ma yéene alal ji at rek laa si yéene dencal ma ko kooku bu la ko dencalee laajul contentieux laajul xeex laajul xuloo ndax saa yu ko soxlaa nag nga delloo ko ko kon defe naa ne ba fii ma toog de déggaguma benn privé bu lekk xaalisu kenn xaalis bi nag am na ci ñoo xam ne xaalis bi dañ ko jëloon yóbbu ko Arabie Saoudite faye ko ay logement bi ñu demee ñu ne leen avoir la saa yu ngeen ñëwee ngeen dëkk ñooñu ne nañ fi bàyyi nga ñëw waxtaan ak ñoom ñu ne la amul benn problème l'essentiel ñun màkk rek la ñu bëgg a dem. am na ñoo xam ne nag dañ ne la man comme dematuma delloo ma sama xaalis defe naa kenn amagu fi convocation bu am contentieux buy wax jox ma sama xaalis wala bu amee itam ñun Renefis daal yëgaguñ ko te suñ ko yëgee itam dinañ ko lijjanti ndax ñun nag dañu nekk mboolaay goo xam ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan dañuy dimbalante ci mbaax dañuy dimbalante ci ragal yàlla dañuy dimbalante ndax liggéeyu aj dafa nekk liggéey boo xam ne liggéey bu noble la liggéey la boo xam ne du am am rek nga ciy séentu dëgg la nag ku ku xëy di liggéey soxla nga dara ndax bu ñu fàttaliku ne y a deux ans ou trois ans état senegal moo xëy daal ne yéen ñi nga xam ne yéenay organiser màkka yi il faut que da ngeen a nekk informel il faut que ñu organiser leen yéen ñëpp ku nekk dina dem wuti bureau te mooy ñi doon organiser daayira amoon na droit organiser màkka loolu waa Sénégal war nañ koo xam yi am na droit organiser màkka association ñu dajaloo daal ba mat cinquante personnes am nañu droit demander agrément suñu amee agrément ñu jox leen quota ñu laaj leen ay fournir leen ay dossier ñu jox ko ñu jox leen ne leen organiser leen màgg defe naa loolu depuis euh, yàgg na ca international ba ñu doon wax ba léegi ni ilaa yow mi na haza loolu nag su amee état taxaw def cahier de charge ne yéen ñi nga xam ne yéenay organiser di yóbbu nit ñi màkk te ñoom ñu ci doon yóbbu seeni waajur di ci yóbbu seeni i soxna di ci yóbbu seeni doom di ci dem ñoom ci seen bopp ñun ñaata yoon la ñu yóbbu ay ministre ñaata yoon la ñu yóbbu ay député ñaata yoon la ñu yóbbu yaayu président wala magam wala rakkam ñoo xam ne ci ay autorité yu kawe la ñuy doon bokk ñu ànd ak ñoom ñu ne ñu kon yëf il faut que ñu informatiser ko il faut que ñu wutal ko yu liggéey yu mucc ayib nga wut lu luye wala nga def sa bu dee amoon nga foo dëkk nga def ko ñu ne la il faut nga am secrétaire il faut que nga am koo xam ne moom mooy liggéey ci liggéey bi booy demit il faut nga yóbbu médecin sooy dem il faut nga yóbbu nangam nangam nangam teg loo xam ne pour ñu jox la seen quota lii ngay def wala seen agrement pour ñu agré agréé la yónni benn commission bu ñëw seet si la loolu soo ko matulee kenn du la ñoo ñu ñëw seet si la fekk nga am bureau am téléphone am outil yi nga xam ne yëpp moom la service buy doxal réewam di am bi nga ko amee ba pare ñu ubbi loola compte si banque yoo xam ne ñoom ñoo ko agréel seen bopp mun naa ci tudd lu mel ni banque islamique mu neex mu naqari fa nga yóbbu sa xaalis fa ngay verser sa xaalis foofu la ñuy jële xaalis bi yóbbu ko Arabie Saoudite fayal la say hôtel fayal la sa affaire lépp lu jëm ci machair yi lu mel ni tàntu munaa yi lu mel ni bis yi nga xam ne moom ngay jël boo wàccee aéroport mu yóbbu la sa hôtel boo jógee Medinatul la jëm biiru àll yi pour armal booy jógee biiru àll yi ñëw màkkatal mu karama bis yooyu foofu da nga koy fay avant ngay dem soo fa jógee itam moom ngay jëlaat yow mu tarwiya mu jële la ci sa hôtel ya nga dëkk màkkatal mu karama yóbbu la Muna bis yooyu ñoo lay jëlewaat Muna bésu veyu Arafat yóbbu la Arafat bu ñu yendoo Arafat ba ngoon jot ñoom ñoo lay jëlaat yóbbu la Muzdalifa su mus dari fa jeexee am na ci ñu lay jàppale am na ci ñoo xam ne fa lañ lay bàyyi nga delloo sa bopp dem sànni ji jamra boo sànnee jamra yi ba pare nga demal sa bopp tawaaful ifaada soo ko defee ba pare nga delluwaat mun naa def fa trois jours wala nga def deux jours tabaski bi passé nga wëlbatikuwaat nag ñoom bis yooyu ñoo lay jëlewaat foofu ci mun naa delloowaat la sa fa nga dëkkoon ca màkkatal mukarrama nga nekk fa def yi ngay def booy wàcc pour ñibbi biis yooyu ñoo lay jël si yóbbu la aéroport mbokki mbokku jullit yi mbokk ujaaj yi ñi nga xam ne ñu ngi bëggoon dem loolu yëpp fii nga koy faye ci seen banque yi nekk fii muy li nga xam ne moom la ñuy wax sa devise loolu nag état loolu la tegoon ñi nga xam ne ñooy organiser màkk bi ñooñu tamit daal di jël macha allah taala liggéey boobu daal di koy jël def ko niñ ko santaane parce que ku ko ci deful su commission bi ñëwee du la jox sa agrément bu commission bi ñëwee yi tamit duñ la autoriser nga mën a organiser màgg bu ko defee waa RIS maa ngi leen di ñaan thème bi may wax ngeen bindal ma thème bi waxtaan ngeen bind ba léegi bindu leen thème bi vie Diouf mi nekk réalisation nga bind thème bi nga xam ne mooy nan la ñu ndax màkk dinañ dem wala duñ dem wala yaa xam noo koy libalee parce que day am solo bu ko nit ñi di seetaanaat ñu xam lan la ñu wax parce que lii dafa toll ci heure boo xam ne jullitu Sénégal yi ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew dagg seeni liggéey bëggoon na ñëw ànd ak waa Sénégal moo xam commission bi la bi nga xam ne mooy délégué général wala privé yi la pour dem màkk ñu xam ne ba léegi ñooñu lu ñu planifié woon la mais ba léegi sottiwul loolu nag ñooñu ko jëloon liggéeyuñu daaw ren tamit ñu ngi nii liy xeeñ nee naa dara neexuti ndax ba léegi Arabie Saoudite ci boppam seen ministre bi nga xam ne moo yore aj bi ak ministre de la santé bi ndax xam ngeen ne lii yëpp li ko waral moo di ne pandémie bi nga xam ne euh, muy Covid 19 bi nga xam ne moo am muy feebar boo xam ne moo lëmbe àdduna moo waral mbir mi demee nii daaw ku nekk xam ne ne heure bi fekkoon na affaire bi kawe lool lool lool ba ñuy wax Arabie Saoudite ay junniy junniy doomu aadama ñooy génn àdduna par fii ci senegal itam. macha allah taala gis ngeen lim bi doon génn àdduna ak ñaata lañ doon am dinañ demoon nañu bay am 300 par jour yoo xam ne dañoo euh, infecte si feebar bi ren nag yàlla defal nañu sutura ba fi ñu toll alhamdulilahi rabbil alamina je touche du bois ni ñu koy waxee waaye ñun jullit duñu wax loolu dañuy wax ñoo ngi sant yàlla di wax tawakkal naa alallahi la hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim yàlla rek kay buur feebar bi wàcc na bu baax a baax doonte ne nag jeexul Arabie Saoudite ministre at bi wax na nee na mu ngi lëkkaloo ak ministre bi nga xam ne ñoo yore mbirum euh, macha allahu taala mbirum santé mbirum wér-gi-yaram moom ministre bi def na déclaration mu ne ba léegi ñoo ngi waaj xool nan la ñuy tëralee aj mi at bi nag niñ koy tëralee ñoom teste nañ ko ci umra bi dégg nañu amoon nañu benn euh, rumeur bu doon wax ne juróom benn fukki junni pèlerin la ñu nar séddale àdduna bi yëpp mais ñoom loolu yëpp nee nañu dara officiel la ci ba si yàgg ñu ne 45000 yi ñooy dem ci euh, étranger yi 15000 euh, yi ci biir réew mi la loolu itam dara officiel gu ci ba léegi nii su ko defee waxoon nañu itam ne ku am juróom benn fukki at foofu la aj gi di yem ku ëpp juróom benn fukki at doo mën a aji loolu tamit biñ ko waxee xam ngeen ne umra bi 50 ans la ñu waxoon mais amoon na ay visa ziyaara yoo xam ne nit ñi demoon nañ ci yàlla dimbali na leen ñi jotoon a dem yëpp nag sax jot nañoo umra falillaahi alhamdu ndax góor-góorlu voyagistes yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom parce que bu ñu fàtte ne sénégalais bu ñu fii xeñ na sax léeg fii ci biir réew mi du mel ni mu war a mel waaye suñu xesee ba nekk bitim réew ñu ëpp bokk dañuy jàppoo nekk benn su su rawatina si màkk bi ndax màkk bi bu ñu xesee ba egg amatul privé amatul délégation amatul nangam wala nangam amatul VIP amatul leneen li am ba am rek mooy sénégalais drapeau Sénégal bi rek vert jaune rouge bi koo gis rek mu nekk sénégalais su réeree di nga ko jàppale su waree def farataam di nga ko jàppale su waree def eh, armalam di nga ko jàppale su xamul ban aj la di nga ko jàppale su waree jënd xaram bi nga xam ne moom la war a tëbaskee di nga ko jàppale ndax loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu si ëpp nee naa fii lañ koy fayee avant ñuy dem màkk ndax euh, yàlla borom bi subhanahu wa taala bi mu defee aju màkk muy juróomeelu ponk lislaam daf cee boole waale ne yëpp xam ngeen ne jaamu yàlla yëpp am na si loo xam ne lu mel ni julli mën def mënul def la ndax julli boo demoon bay sukuraat ba nga xam ne léegi sax yow mënatoo toog dañ lay tëral su dul ku nekk ci euh, réanimation nga xam ne kooku dafa nekk Euh, koo xam ne presque xamatul dara ah kooku day moom la ñuy wax ne xeñ na julli dina ko wàcc waaye képp koo xam ne mu ngi ànd xelam soo ko woowee mu wuyu la donte ne benn cëram yëngu amatul sax dinañ ne mooy julli sëloon ci boppam di yëngal bopp di wax allahu akbar allahu akbar wala mu toog wéeru wala mu tëdde ndeejoor walla mu tëddee càmmoñ wala mu jaaxaan loolu yëpp julli du tax julli wàcc ko xam ngeen ne kenn mënul nekk julli te doo wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu bi si njëkk mooy taxawal julli bu ci topp mooy génne azaka loolu dañ ne nga am am na lim boo xam ne boo ca tolloo ah boo ca tolloo sa alal ak bu mu mënti doon bu dee ci mbéy mi la bu dee ci oor yi la bu dee lu mu mënti doon am na nisaab yoo xam ne ci ngay toll ñu ne la génneel ci azaka benn yoon ci at bi wala mbéy mi bu ñoree bu dee koor gi ñu ne la fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar bu dee koor itam am na lu ñu la tegal wooral su fekkee da ngay tukki wala da ngaa feebar am na lu ñu lay sant am na lu ñu lay tere loolu tamit mbokki jullit yi mbokki téléspectateur aji màkk bi itam kazalika noonu la yàlla dafa wax ne wa hajju baytillahi alxarami liman istataa ilayhi sabilan mooy ku mën ku am yoon kon yow mi nga xam ne waajoon nga teg nga sa xaalis pour bëgg a dem màkkatal mu karama ngir jooxe ji juróomeelu farata bi mais am na loo xam ne li nga mën ngay def mooy sa xaalis nga am ak sa wér-gi-yaram waaye am na ci loo xam ne nag sa état ak ñay waate màkk ñoo koy def loolu nag ñooñu tamit dafa am lu leen di tënk muy seeni état ak état ba nga xam ne nag mooy makkatal mu ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk néegam bu tedd boobu fala itam sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd kooku nag soo fay bala nga faa dem dafa am condition yoo fay demee condition yooyu bokk na ci yii ma lim bokkoon na ci itam ñu ne bala fa kenn di dugg il faut que nga def ñaari vaccin yi nga xam ne moom la ñu santaane moo xam bi bi bi bi bi bi nga xam ne une semaine la la décalage bi wala bi nga xam ne trois mois ala xaalin daal bala ngaa dugg màkkatal mu karama il faut nga ñakku léegi nag weer nee naa presque moo ci des yeneen dëkk yi nga xam ne bëri nañu ñoo xam ne def nañu waajtaay waxuma ne dañuy dem mais waaj nañu mooy seen état autorisé na leen ñu jël wut seeni passeport ñu def seeni visite médicale ñu def seen vaccination ñu dugal seen xaalis def près enregistré wut seeni avion yi leen di yóbbu réew yu bëri bugguma cité mais def nañu loolu ba pare toog nag di xaar su Arabie Saoudite ne ngaree ñëw leen ubbi nañu may nañ leen tant de personne rek dañuy dem rek dugg seen avion dem fekki leen mais ñun Sénégal du noonu Sénégal ba léegi kenn waxul kenn dara état nee na xamul dara mënul wax dara parce que Arabie Saoudite waxul dara Arabie Saoudite nee na mu ngi ci waajtaay waaye mënagul jox kenn dara léegi nag problème bi mooy bu ñu ne woon tey état am na nàngam Sénégal fan lañ jëm lijjanti boobu gëmatuma ne dina mën a nekkati moo tax ñi nga xam ne ñu ngi waajoon di pour dem màkkatal mu karama ah fi mu nekk nag moom yëf yi taq na suuf taq la suuf lool lool lool lool ndax lii ma wax bu fekkoon ne prévention bi suñu état jëloon na ko tey suñ ñu nee aywa rek suba sax da ngay ñëw rek Air eh, Sénégal a ngi fi compagnie la boo xam ne macha allahu taala am nañu habitude yóbbu nit ñi màkk santé baa ngi fi médecin yi nga xam ne ñooy consulté am nañu mais bu ñu ne woon ah waxuñu kenn nag dina mën a am wala du am mais waaj leen daas leen fanaanal suñu ne ëpp Arabie Saoudite jox na Sénégal temps rek ñu ne ana ñi jëkkoon a inscrire ñu selon ñu jaar ko nag jaarale ko ci yoon mu bañ a am benn parti pris mu bañ a am benn ëppalante encore yitam la billet bi di jar fekk yow tamit amoon nga versement boobu bu fekkee li nga versé woon mat na xayrun su matulee nga dolli su manqué su dee ëpp na ñoo ñu delloo la sa xaalis loolu moo waroon a am mais malheureusement amul fi mu nekk tey bu ñu joxoon quota sax gaw ma ne dinañ ko mën a organiser peut-être xanaa délégation ñoom ñoo ciy mën dara ne xëy na ñoom euh, la ñuy am ci lu jëm ci euh, convention ya ñu signante ak Arabie Saoudite xëy na ñoom seen bos mooy gën a gaaw ñu mën a verser nu mu gën a gaawee yii ma leen wax ne hôtel yeeg machair yi nga xam ne transport routier yeeg lekk gañ fay lekk ak naan gañ fay naan lépp danga koy fay avant ngay dem doo xaar bay dem màkk wala nga dugg ci avion bi mel ni ku dugg si oto di fay paas màkk dañ koy wàcc ndax moo taxoon yàlla borom bi subhaanahu wa taala ne alxajju ashhurun maalumaatun aj ay weer la yoo xam ne moom rekk ci nga mën a aje bu paasee dootoo mën a aj dugg si na nag fi mu nekk nii ku mën a dem mun ngaa armal dem màkk fii ba diis zul ba ñu taxawal arafaat def salaasa ayyaam min zul hijja bu boobaa ci ngay mën a aj ndax ay fan yu néew la ashurun maalumaatun ay weer la yu ñu xam zul qa shawal zul bu ko woyesoo nag dootoo mën a ajati xanaa umra umra moom du premier muharram au 30 wala vingt neuf zulhijja mun nga cee macha allah taala umra heure bu la soobee ndax umra moom da ngay tawaaf dox safa ak marwa sànni jamaraat yi euh, kii amul sànni jamra amul dem munaa amul dem musdalifa moo màkka rek ngay dem armal moo xam fan nga jóge nga dem ci sa miqaat nga sol sa armal julli ñaari ràkk yi ñëw def tawaaf juróom-ñaari yoon julli ci ginnaaw maqaama ibrahima naan zam-zam dox safa ak marwa juróom-ñaari yoon nga wattu bu dee góor nga bu dee jigéen nga dagg sa karaw loolu mooy umra waaye aj nag du loolu ginnaaw loolu tamit di nga bëgg jullit bu nekk bëgg na suy dem màkkatal mukarrama mu dem ziyaare ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax sunu soppee boobu nga xam ne nee na képp ku ma ziyaare bu nii may dundee ak nga ziyaare ma bi ma génnee àdduna moo kon jullit bu nekk itam mënul comprendre dem màkk aji wala mu dem umra ji te demul ci bërëb bu tedd ba muy masjid annabawi sharif ziyaare yonent bi ziyaare saxaabaam yu tedd yooyu nga xam ne ñaar ña bokkal fa mu tëdd muy seydina abi bakrin siddiq ak seydina umar ibnu xataab radiallahu taala anhuma ak itam nga génn dem baqiya nga xam ne lu mat fukki junniy saxaabaa nga fa nga ziyaare soxnaam yi nga xam ne ñoo fa tëdd ndax soxnaam yëpp fa la ñu tëdd ba mu des ñaar ñaari soxnaam rek fa tëddul doomam yëpp itam yu jigéen yi ñeent ñi ak kenn ku góor ki fa la tëdd ñaar ñi ñoo tëdd fële ca seen yaay ci makkatal mukarrama muy yaa Xadija ñooñu nga ziyaar leen dem uh, Uhud bu la yàlla dimbalee sax mun nga demaale xandaq mën nga demaale masjidu jumaa fi njëkk a jullee jumaa mën nga demaale masjidu ni fi nga xam ne fa la ñu wëlbatee woon euh, euh, jubluwaayu julli mun nga demaale yi tamit ci kullul mazaraat yi nga demaale itam ziyaare waale itam masjidu Quba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bokk na ci ñi ko fondement bokk na ci yàlla wax ci waxam ju rëy jooju la ussi sa ala taqwa jàkk jooju nga xam ne istuwaaram lu rëy la boo fa jógee demaale bu la neexee nga demaale ci tool yi nga xam ne mooy tool ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon dundee ay tàndarmaam ak teen yi nga xam ne ñoo fa nekk ak yeneen bërëb yoo xam ne yu mag a mag a mag la yoo xam ne macha allahu taala soo demee Medinatul Munawwara sa xool day sedd ak fa nga xam ne baabu kuuma fa la doon jaabale ay fasam ak montagne yi nga xam ne da doon doxantu di fa dem lu mel ni Uhud du xeex rek moo fa xew yonent bi doon na def tàkkusaan mu ànd ak saxaabaam yi jóge foofu mu tëdd tey mu nekkoon këram dox ba Uhud di doxantu di jël air di wax li nga xam ne moom moom la doon wax ne montagne bi jabaloon Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu montagne la boo xam ne suñu ay xarit la suñu ami la daf ñu sopp ñu sopp ko ba nga xam ne sax su ko waxoon macha allah taala montagne bi day bouger di yëngatu di tiit mu mu mu di ko tooñ di bës tànk bi naan ko usbut usbut usbut yaa uhud ma alayka illa nabiyun wa wa wa siddiqun wa shahidaani wala wa shahidayn mu naan ko dalal dalal yow uhud xanaa du benn yonant rek moo nekk ci sa kaw ak kenn ku dëggu ak ñaar ñoo xam ne ay martyr lañu loolu bokk na ci mu'jizaatu rasul ndax xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent la siddiq bi mooy abou bakarin siddiq moom li ko ko may nag mooy rek li mu ne woon in qaala faqad sadaqa biñ ko ne sa sa waa ji wax na tey lu rëy de mu ne leen lu mu wax ah yematul ci yàlla ma yónni de waaye tey moom daa xëy rek ne Jérusalem dem na fa jóge fa dem ba ci yàlla gisanteeg yàlla dellu siwaat jant te te te te guddi gi jeexul ah kii waxam ji rëy na de ñuy déglu moom lan la wax moom suñu sang boobu di Aboubacrine Siddiq li mu tontu rek mooy in qaala faqad sadaq cey sama waa bu dee ne moo ko wax rek wax na dëkk allahu akbar ci la amee garaatu siddiq mooy ku dëgg kooku moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Uhud dalal xanaa du benn kenn benn yonent moo nekk sa ah, waay waay waay waay ah, jabal eh, xuta yay nag yonent ak ku dëgg ku yàlla mentionné bind ko ci alquran ñu wëlbatiku mu ne la ak ñaar ñoo xam ne ay martyr la ñuy doon dañ leen di rey du ñu dee dee bu naturel muy Seydina Umar ibnu Xattaab xoolal jàmbaar jooju xoolal jàmbaaru fakk tëdd boobu al faaruq nga xam ne bu nee tëll seytaane ne tëll seytaane day daw jàdd allahu akbar mais teewul macha allahu taala dañ koo rey moo tax yonent bi ne ko wa ma aleyka illa nabiyun wa siddiq mu ne ko benn yonent rek a fi nekk ak kenn ku ñu dëgg ak ñoo xam ne dañ leen di rey muy Seydina euh, Seydina Umar macha allahu taala ak ki nga xam ne mooy Seydina euh, Aliyun ibnu Abi Talib gis nga Aliyun itam dañ koo rey moom itamit ñoom ñoo fekke woon wala ñu ne Ousmane la en tout cas ñaari sahaaba yi kenn la ci ñoom ñoom tamit kee dañ koo fekk fa muy jàng alquran ci fajar gi moom it ñu butti ko rendi ko kële itam dañ koo butti Seydina Aliyun itam dañ koo rey xoolal ma ñii kon ndeketee àdduna yàgg naa metti lu metti yàgg naa am kon nag loolu yëpp di nekk ay histoire yoo xam ne daloon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam kon yow da ngay bëgg yow jullit bi soo demee màkkatal mukarrama nga def sa aj wala avant ngay def sa aj heure bi doon na fekk tey ñu nekk ca madinatul munawwara ndeysaan ñëpp di gaawantu kaar yi taxaw ñuy dem def ku lu saan ma indil leen nostalgie boobu wala ñuy dem ñu naan tey aywa leen tey incha allahu taala suñu jullee timis ba pare nañu tase ñun ñëpp porte 25 fa la ñuy dajee pour lan pour dem dugg rawdu ba ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala suba la ñuy dem kullu ziyaar na ngeen pare su ngeen demee tàndarma ajwa baa nga fa te ajoo bi nga xam ne ku xëy lekk si juróom-ñaar lu mu fekk si sa yaram lu mu doon même bu dee poison sax euh, da da koy dindi te te dara du la dal euh, ñu ko fay jënd ndeysaan jigéen ñee góor ñi ñëpp ànd ñu nurale yére ya macha allah taala xam naa ñëpp a ngi koy dundaat. macha allah taala ku mel ni maam Awa si ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu groupe Safa wal Marwa di nuyu group ñi nga xam ne ñoo ci àndoon ak ñun di nuyu waa Aminatu Bintu Wahabin di nuyu waa waa ma Liwaul xam di nuyu waa Renofis waa ñoo ñooñu ñi yore màkk bi yëpp waa Kapio Alaaji Maxtaar Diallo ñooñu ñëpp ndeysaan fi mu nekk xam naa tey xool yëpp tooy na ndax vraiment ñun amuñu lu dul màkkatal mukarama kii dafa xool. ne lii moo ko intéressé moom commerçante la kii ne man béy moo ma intéressé kii ne man métier bu nekk ñu jël ko ñii nag nii ma tudd nii ak ñi ñu bokkal ñu ne ñun yóbbu nit ñi rek ñu ziyaare ji yonante bi sallallahu alay wa sallam defaale seen ponk ak juróomeelu ponk bi li ma ni sataa ilayhi sabilan ba tey rek mooy koo xam ne attan nga mën nga dem mais na fekk sa santé baax santé problème la ci ba tax na euh, mbokki téléspectateurs yi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog ñun ci waxtaanu Ya Sayda Fatou Bintou Diop yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may dab boo gisee ñu indiwaat thème bi tey mooy ne heure bii tey première Zul Qaada wallahi daf ñu doon fekk première avion dem ren ba léegi fii ñu toog nii xamuñu ci lan la ñuy dem xamuñu ndax dinañ dem wala duñu dem xamuñu dañoo war a xam nag bu fekkee duñu dem ñu waajal leneen ndax leneen am na fi. umra mu ngi ñëw mun nañu organiser umra nit ñaa ngi dem umra ba léegi ci suba bi ma xëyee taal naa sama tele xaram baa nga fees dellu ñu def umra am na ñu bëri ñoo xam ne demoon nañu umra ci ñetti weer yi passé limite d'âge bi ci am problème mu santé la ñuy ñaan yàlla feebar bi yàlla na fi jógee jàmm gis nga Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoom vraiment boolewul ñu ci liste rouge ndax moo tax umra bi bi mu ubbee Sénégal bokk na si ñi ñu jëkk autorisé ñu dem umra ji te man déggoon naa ci délégué général mu ne umra bi mooy takkandeeru aj bi ah takkandeer bi de ñëw na de wante jëmm ji de moom kebe gisaguñ ko de te jëmm ji nag moo doon ñu organiser pèlerinage munaguñ ko organiser waaye ñu ngi leen di xaar donte ne benn la wala ñaar la nan lañ koy organiser ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax di leen déglu ndax yéenay suñu kilifa su doon suñu sago nag ngeen demal ñu ci kilifa gu mag gi mu jokk ak suñu ministre de tutelle Aïssatou Tall Sall nga xam ne gaynde la ah wax dëgg yàlla ah ñooñ day am nañu yaakaar si ñoom ne lépp lu ñu song dinañ ko mën a daan suñu président itam am nañu yaakaar ne crédibilité bi ko yàlla may ak cofeel gi nga xam ne am na ko digganteem ak roi yi nga xam ne ñoo nekk Arabie Saoudite na moom barki démb rek demoon na umra ji mook soxnaam ak leen nit ci ay njabootam xam naa ne ñun tamit daal bu nu mënoon a am ak nu mu mën ci toll na nekk lu ñuy xam ñu teg ko ci yoon teg ko ci yoon bañ koo mbuux mbuuxoo bañ koo doxal ci suuf donte ne fukki ni tey dem wala 100 wala 200 wala cent ñu joxe ko à temps baaxoon na ci wala ñu bàyyi woon nit ñi autoriser leen ñu def pré-enregistré ah bu ko demul nga xam ne du du du du état seen jaan wàcc na nga xam ne du délégué général seen jaan wàcc na nga xam ne itam du waa euh, Renefis seen jaan wàcc na ñan la kon ngeen xam ne dogalu yàlla bi la yàlla ndax i tamit ku nekk dégg na ne euh, woote la te macha allahu taala kuñ fa togg sa añ nga lekki ko wallahi lazim euh, julit war ak gëm qadar nag xayrihi wa charrihi la ko ca neex ak la ko ca metti donte ne sax du charr nag ndax macha allahu taala demu màkk moom ni ko yàlla waxee rek woote la ndax di nga gis koo xam ne dencul un franc ñu ñëw jox ko billet ak devise ak argent de poste ne ko demal nga gis koo xam ne ay milliard milliardaire la lu nekk am na ko ci àdduna wante ba léegi rek musul dem màkk loolu nag mooy wane ne euh, ñun ñi nga xam ne amoon nañu occasion pour dem màkk at mu jot nga ne da ngay xaar ba déwén at mu jot nga ne da ngay xaar ba déwén at mu jot nga ne dangay xaar ba déwén gis nga tey mu ngi nii jafe na te amoon na temps mu yomboon am na ñu xam ne sax dañ leen doon may billet màkk ñu ne non non ñu dem parce que xale lañu <coughs> nga ne wala a ah, man de du ma dem ndax bu ma ñibbisee li may sol dangal yeeg wala bu ma ñibbisee xeesal beeg wala greffage bi moom moo ma teree dem màkk allahu akbar gis nga tey nag mu ngi commencé jafe or que yomboon na la. munoon nga yóbbu say ak sa papa yomboon na la nga ne déedéet damay xaar ba tabax kër duma dem tànk sama jëkkër demul duma dem tànk sama yaay demul ak sama papa te lii farata la euh, farata mooy lan li nga xam ne yow la war kenn mënu la koo defal mu ngi mel ni lekk ak naan julli woor azak kenn du ko defal kenn yow la war fardu ayni la loolu la tukkul haalpulaar yo farada farallaaji toɗɗiɗo mo lu nga xam ne yow la war bokkul ak euh, li ñuy wax fardu kifaaya fardu kifaaya moo xam ne bu ko ñuy defee wàcc na ñi ci des mais aj màkka fardu ni la kon gis nga ba nga amee euh, doole te léegi mooy de cinquante ans la ñu wax ba soixante ans kon yéen ñi nga xam ne ah am ngeen âge boobu mënoon nañ leen a préparer defal leen seen visite médicale ngeen def seen vaccination ñu préparé leen seeni avion teg xaalis bi ci compte banque yi nga xam ne compte bloqué lay doon kenn du ko mën a laal suñu mënee dem ñoom ñu dem suñu mënul dem ñu teg leen foofu ñu ne bu déwénee yéen a prioritaire ndax yàlla rek a xam ba léegi amaguñu ba tey néewaguñu nii nii wii nii noo waaw nii wii nii non néewaguñu wii néewaguñu non ñu ngi ci diggante bi mais wii mën na am bu wii amee nag fi mu nekk euh, dina jafe torop fi mu nekk dina metti ndax ba mbirum aj yàlla li taxoon mu ne watan sa wadu préparation bu leen yóbbal fa inna xayru zaadi at taqwa na xayra zaadi fa inna xayra zaadi at taqwa li gën nag mooy ragal yàlla ba waaj ba heure bi doon na fekk ñu def suñu ay formation macha allah taala jàngal nit ñi ndax yaa ñu bëgg a def Eh, ifraat wala tamatoo nga war a def wala xiraan yu am solo yooyu waaye nag fa sabrun jamilun inna laha ma as sabirina ah bu amulee itam ñu muñ loo ko yàlla borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla nee na a ah, képp koo xam ne muñ nga di nga am yool yi nga xam ne muñkat yi amoon nañ ko gis ngeen yonent yi fi jiitu woon yëpp ci ay jafe-jafe yonent bi ñaata yoon la bëgg aj ñu tere ko dem na ba jub màkk ñu ne ko doo fi dugg sulhul Hudaybiya di ko waraloon ba umu salamata def ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne moom la def loolu yëpp ay jafeñ-jafeñ la yoo xam ne moom sallallahu alayhi wa sallam dundoon na ko gis ngeen yonti yàlla Ibrahima la mu dundoon gis ngeen yonti yàlla Moussa la mu dundoon yonti yàlla Isa ak seeni ñooñ ñun tamit tey lii ñuy dund nii metti na ci xolu jullit yi nag xëy na ñi nga xam ne euh, dunduñu màkk euh, xëy na duñu xam mbir mi nu mu toll waaye ñi tàmm at mu jot nga xam ne ay 30 ans yaa 40 ans tabaskee wuñu Sénégal màkk seeni xol tooy na daaw li am suñu taalee euh, chaîne bi nga xam ne fa ngay jàppale da ngay gis ñu toog di jooy rawatina daaw jour Arafat jour Arafat ñu bëri daaw euh, dañ koo woor fii mais xol yëpp a tooy ñu tere ñu ko ren tamit ah jullit ñëpp fu ñu mën a nekk si àdduna bi war nañoo yuuxu ba gouvernement saoudien yëg ne yuuxu nañu ne seen ñàkk ñëw màkka ne naq naqari na leen waaye nag bu ñu bàyyee nii rek mu sedd te arabi sawdit yu baree nga fay xeeñ yoo xam ne nag ah bu jëmul kër de waaw jëmul kër ci diina ji de lu baree nga fay xeeñ loo xam ne yal na yàlla dolli sutura daal ci loolu rek lañu ci mën a wax di ñaan borom bi subhanahu wa taala su fekkee ne yiw a ngi ci que suñu dem moo gën ndax alhajjul mabruur laysa lahu jazaun ilal janna aj gu ñu nangu nag payam mooy macha allah taala ajjana xam nga jaamu yàlla boo xam ne dangay xëy rek euh, sangu ba set sol sa yére yu weex daal di fas yéene dugg ci aj wala umra yàlla ne baal nañu la sa bàkkaar yëpp jaamu yàlla yooyu dafa yombul nga dem tawaaf juróom-ñaari yoon ñu jox la sa laissez-passer àjjana nga dox Safa ak Marwa ñu jox la sa laissez-passer nga dem yennu Arafa yàlla tiim la di la kañ di la bàkk di wax ak malaaka yi daal ne gis ngeen sama jaam yi xool leen nii ñu mel loolu bés ba bésu arafa rek la bés ba mooy bés bi nga xam ne moo ëpp ci lu ñuy jot ci ay nit ñoo xam ne dañ leen ne woon bu nga xam ne safara lañu war a dem jouru arafa rek la yàlla di ñëw wàcce loolu yëpp dindi ko ne leen yéen dootu leen demati safara dugal naa leen àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa keroog ba mu ko dundee dafa wax ak saxaaba yi lan la wax ak ñoom ne leen yéen saxaaba yi yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na mbooleem ñoo xam ne teew nañu fii rek jéggal naa leen seen bàkkaar dem nañu am nañu seen lu leen di dugal àjjana saxaaba yi Seydina Umar ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax ñun ñii rek la mu ne ko déedéet ñun ak képp ku teew arafa ba keroog àdduna di tukki kan mbokki téléspectateurs yi dañuy gis ne ndekete bés boobu ku la ko xañ xañ nga la lu rëy nag ku la ko xañ te nga am wér gi am xaalis bi tege nga bëgg a dem ñu ne la doo dem mu ngi mel ni tey nga bëgg a dem julli ji ñu tëj jàkka yi nañ tijji jàkka yi nag nañ tijji jàkka yi nit ñi dem si jàkka yi julli ji nañu nañu macha allahu taala ubbi euh, yoonu màkk bi nañ ñu ci jàppale su dee mën na nekk wax dëgg yàlla ba su arafaat ku la ko xañ xañ na la yiw bu méttee métti xañ na la yiw bu bu mag a mag a mag a mag a mag ndax bés boobu gis ngeen ne bi ñu mujjee ñu dem ba tisbaar julli tisbaar boole tisbaar ak takkusaan bi mu taw taw boo xam ne keroog ñëpp dañoo sant yàlla te képp ku fa teewoon xam naa ne bu dee ne fukki problème nga fa yóbbu woon di ko ñaan borom bi subhaanahu wa taala gis nga ne juróom-ñett yi wala juróom-ñaar yi yàlla nangul na ko duma wax sa 5 pour cent yi yàlla nangul na la ko ah comme nag dee moom day betti. te dee xamul mag xamul ndaw kenn xamul déwén fan la ñuy fekk ñuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ren ñu bokk si ñuy aji màkkatal mukarama man de maa ngi koy ñaan sunu borom te xam naa ne itam yéen ñi waaj yëpp dem yéen a ngi koy ñaan seen borom ñuy ñaan yàlla nañ ko yàlla dimbali di ñaan suñu autorité yi ñu taxawuñu ci loolu segam mën naa nekk su mënul nekk itam ñu xam ne ñoom dem nañu ba jeex waaye dafa mënul nekk bu boobaa ñun suñu xel day dal ne ñii ñu dénk suñu réew ñii ñuy jox suñu ay impôt ñii nga xam ne ñoo ñuy laaj carte yi ñu leen koy sànnil jar nañ ko bu boobaa dafay dañuy xam ne ñii ñun suñu diine lislaam bii ñu nekk ñor na leen suñu diine lislaam bii ñu gëm ñor na leen li ñu bokk ak ñoom ne Sénégal 85 wala 95 pour cent ay jullit lañu dañuy gëm ne loolu dëgg la waaye bu fekkee ne lu ñëw rek ñu daal di koy oyofalal yombal ko loo wax rek ñu ne ah dañuy déglu waa Arabie Saoudite ba nu ñu def rek non non Arabie Saoudite réew la bu soveren boo xam ne am na ay réalité waaye ñun tamit réew la boo xam ne suñu diine l'islam bii daf ñoo ñor diine l'islam ñor nañu de julli daf ñoo ñor de woor daf ñoo ñor de génne azaka daf ñu ñor de waaye tamit dem màkkatal mukarrama daf ñoo ñor ba tey ku am koy bégal ci sa waajur balaa sa xol a sedd nga ne ko yaa yaay booy wala papa dama lay woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xolu jullit boo xar fii ci senegal yoonu màkkaa ngi ci biir wallahi lazim koo gis rek mu ngi naan la ay waay maa ngi ñaan yàlla nan kañ laay am bi ba ànd ak yow dem màkkatal mukarrama loolu nag partout nag si monde bi rawatina fii ci senegal boo demee ci région yi ñëpp loolu lañ lay wax rawatina waa Casamance géem a jóge barki démb maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen wax ne yokk leen ñaan yi ndax adduwaaw silahul mu'min ñaan mooy gànnaayu jullit te am naa yaakaar ne bu ñu ñaanee yàlla mën na def Arabie Saoudite ubbi bunt yi feebar bii di Covid 19 jeex fi ba ñu mën a dem dem aji màkk mën a dem gisanteek suñu xarit bi nuyu ko ziyaar ko yàlla delloo ko ruwam mu fay ñu donte ne boo nekkee fii nañu bëril salaatu ala nabi yi nañ ko bëril nawet baa ngi nii di xeeñ bërki démb Ziguinchor def nañu seen première taw si mardi bi si guddi ñuy ñaan fii Ndakaaru ak Sénégal yëpp yàlla may ñu nawetu jàmm nawet boo xam ne du nekk mbënn nawet boo xam ne dafay ñëw nekk taw yu dal kenn du ci génn àdduna ci ay dënnu ci ay tonnerre waaye tamit kenn du si am ay mbënn yuy daaneel ay kër wala di daaneel ay ay ay ay ay cité coono yi am yàlla may ñu ndoxum jàmm ndox mu sedd guy ñu fekke ko te tal ko te ñax bañ bañ a sax suñu kaw ndax bëri na koo xam ne euh, nawet bi balaa jeex ñax sax sa kaw mooy lan mooy ñu denc la mooy nga génn àdduna te gis ngeen deewu ndaw yi ni mu bëree rawatina ndaw yu jigéen yi ak yu góor yi gis ngeen accident yi ni mu bëree nekk lu metti gis ngeen rayante bi nii jamante paaka nit ki génn àdduna wala tiirante ay bal wala euh, agression yi macha allah taala ak mort naturelle yi am pagaay ba nga xam ne ñëpp a tiit sooy voyager da ngay tiit soo nekkee sa kër da ngay tiit soo toogee sa kër sax sa njaboot boo leen gisulee sa fit day dem loolu yëpp nag ay ñaan mën na ci dara ak nag ñu yaruwaat yar njaboot gi te bàyyi yàq bi te jeunesse bi dem liggéey xoolal bërki démb li xew université vraiment ñëpp a ngi koy ñaawlu ndax bu ñu demee ba defal leen benn boo xam ne kudd ni mu mel liggéey ko liggéey bu baax boobu nga xam ne restaurant luxe la te loolu amu fa woon ngeen mer seen mero amical daal di koy toj mais seen bopp yéen a ko yéen a yéen a koy yéen a koy ñàkk yéen a fay lekk état bi ministre yi lekki fa ñu ëpp seen njaboot nekkuñu fa kon loolu moom il faut que njaboot gi nag ngeen bàyyi yàq bi yàq moom dafa war a jeex ci réew toj kaar dafa war a jeex ci réew mi toj ay làmp dafa war a jeex yàq alalu jaambur miskinu yàlla bu dajalee ba am astuutam ubbi magasin wala mu def essencerie wala mu def lu mu mënti doon nga mer sa mer dem toj ko toj ay vitram ah yàq alalam lakk ko wala nga jël ko loolu war naa jeex Sénégal mbokk yi te loolu nag ñun waajur yi am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ku nekk na yar njabootam ku nekk na yar njabootam ku nekk na yar njabootam ku sa doom di dem université ne ko jàng moo la fa yóbbu politique yóbbu wula fa ay ay ay ay clan yóbbu wu fa ay amical yóbbu wu la fa jàng def sa examen am sa diplôme moo la fa yóbbu loolu dañ ko war a wax njaboot gi njaboot gi itam ñu ngi leen di ñaan en tant que ay waajur ñu xoolaat suñu réew mii yow nga wodd jotul nga booti gambu toj ko sa kaw yaa koy yëg nañ leen bàyyi yàq bi yàq moom kenn kenn kenn du ci ànd ak yéen ñu ngi leen di jooyle président ngi góorlu di def lu mu mën secteur informel baa ngi góor góorlu pour ñu jàppale leen ngeen dugg ci liggéeyukaay yi ngeen yokk seen jàng ñu ngi leen di kaasal ay bourse ñu ngi leen di kaasal lu nekk ñu ngi leen koy kaasal lekkatuñu naanatuñu mere nañu ñëpp ndax yéen ndax seeni mitit mais yéen tamit njaboot gi il faut ngeen dimbali ñu ngeen bàyyi xeex bàyyi leen saagante bàyyi leen histoire ngeen moytu sàngara ngeen moytu drogue ngeen moytu ngeen bàyyi drogue bi yéen suñu doom yi bàyyi leen naan bàyyi leen sàngara bàyyi drogue bi te ngeen wëlbatiku ngeen jàng ngeen yaru ngeen defar seen réew jeunesse sur ren mooy nekk magu ëllëg boo nee àdduna wax ma nuy sa avenir u réew mu ne wax ma nu sa ay ndaw mel kon nag lislaam bii di diine l'islam sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam victoire yi mu ci njëkk am yépp jeunesse be ko ko jox moo xam bu góor ba la moo xam bu jigéen ba la keroog ba muy gàddaay imaam Aliyun la bàyyi ca kaw lalam ba moo ko fa wuutu ba muy gàddaay Asma bintu binti Abi Bakrin moo ko doon indil lekk ca xaaru xira xaaru abi sawri ba mu nëbbatu woon muy euh, participation boo xam ne mu jël Musab ibn Umayr jeune la woon yabal ko yónnee ko mu nekk première ambassadeur dem fa di jàngal ñi nga xam ne ñooy waa war Munawwara kon yéen euh, euh, euh, vraiment jeunesse jullit ñi yëf yi du du du du du du du guddal sikkim ak gàttal yére rek déedéet da ngeen war a jàng war a xam histoire u l'islam ngeen war a taxaw yokk ñu defaraat plan plan éducation bi ñu defaraat njàng mi ñu defalaat euh, yar gi ngeen nekk si yar ñu bàyyi saaga yi ñu bàyyi wax yu ñaaw yi ci réseau sociaux yi ñu bàyyi euh, waxante lu bon ak génne ay secret yoo xam ne defarul réew amul benn njëriñ réew du jël la mu gën a leen di ko wone réew buy wone dafa war a wone lu rafet loolu daal mbokk yi wax dëgg yàlla tey daal ci am naqar lu lool nag ak mitit lu lool li nga xam ne mu ngi xew ci senegal ci bakkenu xale yi nga xam ne ñu ngi dem ak mag ñi déegi ni mu mel metti nañu dëkk boo xam ne plateau médical bi li yàlla xam doy na njàng mi li yàlla xam doy na pauvreté bi itam bëri na doole te gis nañ ne kon beneen côté bi yàq baa ngi lu kenn xamul bu ñuy ñàkkee ba amuñu ndox mu ñu naan ñii ngi pasar pasaree ay millions di ko fowe loolu tamit nekk na lu metti jullit ñi nekk na lu metti sax du ma ne jullit ñi mooy ñi fiy dund ñëpp euh, ñi gëm yëpp képp ku gëm ñu ngi lay wax ne vraiment nañu xoolaat suñu bopp Sénégal kenn xamewuñu woon nii jikko yu yàqu nañu jikko yu yàqu nañu jikko yu yàqu nañu te mag ak ndaw ñëpp a war a defaruwaat nañ leen defaraat réew mi sëriñ baa ngi nii léegi def sëñ jiili li jóge euh, Touba si kanam ñu ngay jéem a gas def ay assainissement fexe nu ñuy dugale tiwo yi fexe nu ñuy assainir pour ndox mi mën a am ñu defar ndox mi béy ay tool mais loolu mooy développement mais développement duwul rek li état di def président ngi nii góor góorlu mu ngi ñu bëgg indil lu nekk terre baa ngi nii mu ngi ñu bëgg a indil ay macha allah taala lépp lu am bitim réew lu rafet ñu ngi ko bëgg indi fii ci réew mi mais bu bu bu kenn dee gas fukki di suul poussière yi bëri mais pax du mën a am kon réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ leen góor góorlu yadan bi yadin ñu joxante loxo. wa ndax yàlla dafa wax ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nee na dajale leen ci sama buum gi bu leen teqalikoo waaye tamit wax na lu am solo inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du wàcc di di di di di wëlbatil benn réew na nga xam ne noonu la war a doxe waa réew mi ñoo mën a defar soppi seeni mbir te senegal dafa bokkoon ci modèle yi gënoon a ñu doon doon tudd partout tey macha allahu taala bokk nañu si réew yi gën a dellu ginnaaw bokk nañu si réew yi gën a ñàkk bokk nañu si réew yi gën a bëri histoire démocratie bi macha allahu taala xuloo xeex bañante waxante lu ñaaw la fan lay jëmee nit du jëmee kenn si kanam nañu leen jàppalante ñu bëggante ku nekk li nga am nga defar ko TFM ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp. beneen télé itam ñooñu ñoo ko mën a defaral seen bopp ña ca gouvernement ba ñoo mën a defaral ku nekk fi nga nekk defar ko TFM bu jagee tey jagalul yu Ndour jagalewul Birane ñun ñii lay jagal ñun ñoo ciy liggéey bu weer deewee ñu jox la salaire nga mën a dem fayeeku ji macha allahu taala kon nag daanaka liñ ñi cëraloon ci waxtu wi jeex na ndax journal baa ngi waaj a ñëw euh, ñuy nuyu ñi nga xam ne fatiment mi nga xam ne moo nekkoon ci réalisation bi macha allah taala ñi nga xam ne ñooñu euh, tey fifi moo nekkoon si maquillage bi may nuyu tamit euh, sama doom euh, Adja Adja Adja madam Ba di nuyu sama xarit yata di nuyu Adja Khady Diop Sow bu Seck Khady Samb di nuyu macha allah taala waa waa waa waa waa Ziguinchor yëpp ndeysaan Adja Aminata madame Ngom. tonton Cheikh Ngom soxna Bintu nduur Faat Bintu nduur Faatu Mbay Ndey Xadili Oustaz Ibrahima Ndiaye ñuy waajal ziar bi nag ci Sandière nanu sekk maa ngi koy nuyu nee na maamam fa la bokk ñun ñii ñëpp incha allahu taala suba ziar bi vendredi lay commencé samedi ba dimanche waa Ziguinchor yëpp a nga koy waaj may nuyu nag waa Adiyana sama mbokk yooyu nga xam ne ñoom si Gilles Diagne euh, macha allah Adja Fat Diagne di nuyu waa Renofis yëpp di nuyu waa Capio di nuyu ñëpp ñoo xam ne rek ñoo bokk liggéey bi Adja na bu sekk commissaire di nuyu macha allahu taala di nuyu Adja Marème Diop HLM Grand Yoff Maymouna Ndiaye di nuyu suñu sët boobu suñu turandoo boobu nga xam ne borom ngénte lu neex li di ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér yàlla may dégg topp Oustaz Assane nag tey macha allah taala dafa nekk si yeneen yitte xam ngeen ne moom àjjuma nag imaam la nag imaam ci imaam yi Oustaz Mor caam itam dañ koy sargaal suba fële ci euh, euh, euh, fa mu dëkk yaraax suba lañ koy sargaal ci après midi bi ñuy wax mbokku jullit yëpp ku fa mën a fekk rek nga fekk si ko gis naa oustaz Mor Thiam nag dégg naa dangaa am ay jigéen yu bees waaye man dinaa ñëw rek xam ne yëf yi sama yëf bopp la yëgaloo ma ko waaye man dinaa ñëw incha allahu taala kon nañu wax ne rek wa axiru daawaana euh, di wax itam complète bu rafet bi macha allahu taala sama doom sofi si moo ma ko ñawal yaayu busra buso bi ko ñaanal ak soxna ay ñaan ak ci tissu bi Sabina ku euh, Sabina boutique di nuyu waa Tuel nuyu première dame première dame Marème Sy ak borom këram ak njaboot gi yëpp di wax ne waa xiru daawaana ani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa